Karim Wade nee na Macky sàll day naqasaale nee na Macky Sall li bëgg mooy éliminer ko ci course bi li mu bëgg mooy moom mu bañ a bokk te moom loolu gàcc Sénégal la parce que Sénégal lu toll na Sénégal élection am parti socialiste amul candidat PDS amul candidat nee na loolu moom du ko nangu yaayam ñëw na mais moom mooy ñëw nee na nag képp ku yaakaar ne ñeme nga taxaw xeex candidature boo jàkkaarloo moom face à face ko defati nee na bu jugee ci loolu moom Macky Sall foofu ñu jàkkaarloo ci nii war a ci nale léegi nag ñu xool yi ndax moom loolu mu bëgg dana ko am am na nag ku yëkkati kàddoom si solo nee na ku bokkul ci affaire bi doo ci bokk ku ci jéem a bokk te bokkoo ci boo ci bëggee bokk dina ci génne ñoom ñaar danañ jàkkaarloo seen jàkkaarloo nag ñu xool nan lay demee ndax làmb lay doon war a wax ba juboo waralul xew ñu seesi Karim Wade ak Cissé Big June. Karim ana fan su Karim yi ana fan su Karim yi ana waa PDS ana fan su Karim yi wara waa Dinguet jaari waa Dinguet li ma bëgg wax balaa ñuy dem ci lu am mooy dama bëgg ñu xam ñaa mooy am bu soobee yàlla Karim Wade mi gisuma lu tax duma bokk ci élection yi par la force. eh, eh si c'est lo eh, mi ngi imposé boppam ah mi mi ngi imposé boppam ah ma wax ak ma. man kii du ma jàkkaarloog moom. jàkkaarloog ak allah ji góor la kante laa la wax maa ngi nuyu Macky Sall di ko gërëm kii du sénégalais ku nekkul sénégalais. maa la gën a doon sénégalais maa la gën a doon sénégalais maa ko gën a doon sénégalais maa ko gën a doon sénégalais. doo sénégalais moom jàkkaarloog moom. kii du sénégalais. barki allah ji góor la kante kii du sénégalais. foo teg la ku bëgg a jaar ci kawam man maay rëkk sa ndigg nga dellu fa. ko lal ko. ma bàyyi ma wax laa wax. munoo rëkk sama ndigg munaloo ma dara. du mag yow mag Macky Sall la. du mag yow. gën a nekk Sénégal. loo ci bañ bañu ma ko ci. ma lay gën. ma ñëw ci. combattante bi nga xam ne Macky du moom. boo paree pare na ay jë ay jë Karim Wade demal mu yaa ngi daw laa mujj amuloo condition amuloo condition. ku amul ko yàq. bu may mat bu may mat. bu may mat xool ko day mat. amul mat amul jàppandoo leen jàppandoo leen. foofu góor la. maa ko ëpp doole maa ko gën a féetee mag ko ëpp doole. waaw amul doole mu ngi xeex xool ko. yow du ah nooy fas yéene du bon. patron laa soxla man du ma kii. waaw sama mag doo ci jot parce que man la man la la booleel bala ngaa jaar ci moom ci man. man soxla